waaye sëñ bas nag ba sëñ bi yëkkatee waaye sëñ sëñ bas ba sëñ bi yëkkatee bis ba léegi ah, jëf ji mu indi ngeen ko gis yéen loolu rek ngeen ci xam leneen lu ñu lott ci war koo dox te mun mënuñu koo dox moo moo ñu koy doxal moo ñu koy waxal te te loolu ëpp na ci ñoom te loolu lépp ak woyofam rek la waaye moom li mu waroon a seq ak ñun mooy kaay leen ma yónni leen baa ñëw leen defal ma waaye nag loolu lépp xoolu ci ñun xam na ne ak njabootam rek lañ. lu euh, luñ mën doon ñun euh, ay dongaam la lañuy doon xam na ni lépp alal la moo tax it mi mi ngi koy def ci seer di ko def ci baatin te si sëñ Bass alxuraan la ko jëkkee woon nag fekk na ko fu ne fekk na ko ci hôpital ci yeneen yoo xam ne loolu mbirum biir la moom xam na ko man man ñii xam naa ko doon ko sëriñ bi fonkoon lam jàppoon ci sëriñ bi nag ba sëñ bi ba bàyyi ko woon fekkoon liggéey sëñ Tuubaa rek ñur ko boo neexee mu ne yéen kat seen kilifa la waaye def ko fa mu tegoon sëñ la sëñ mun na mi di ko jàppale ci lépp cim xel ak ci seey ak ak lu am jox ko te jàpp naa ne ñun loolu ëpp nañu ndax démb rek yónnee na fi teraanga bi yaatu yaatu te noonu noonu la ko daan defee ba sëñ Ngounda mi sax am na ci mbett lool lool lool rek daa doyoon mu daggaat ay yitteem ak sëñ Bass ni mu xate ñëpp xam ko nga xam ne moom saa su ne soo sine rek ci ndigal la ne mu bàyyi ay yitteem ñëw loolu kon diis na ci ñun lool waaye dañ lay sant ci barki Serigne Touba ak Cheikh Ibrahima daal euh, sëñ Bassirou daal li nga bëgg yaa ko xam ne yàlla na la ko yàlla defal guddal saw fan te wéral la te sa sagum ñëpp nga nag yàlla dogal naat Serigne Touba sëñ Touba yow yow rek la ni nga mel yow yow sëñ Touba rek ko am loo yëgul euh, ñu fi indi muy tëli bii euh, li sëñ Xaadim Diouf wax dëgg la sëñ Bass liñ fi daj ak ak liñ fi wax loolu moom kéemaan la. toog naa ci kanam ba taa yi mu mu wootee taxaw pour rek kër Serigne Fall gi am tëli kon nag Mbàkke la nga yéene woon loo rek la yàlla def kon nag euh, sant nañ la bu baax xam ni euh, jàqu ñu tiituñu suñu xel na bu baax ndax am nañ la suñ gestoo gis la suñ suñ la bëggee gis-gis la kon ñun tiituñu dara Mbàkke dañ lay ñaanal nga yàgg te wér li ne suñu xol lépp daal mëneesu ko wax waaw ndax euh, li ñu waroon ñun ci ñun. yow yaa ko def yow yaa yaa ñu jox te ñoo la ñoo la war a jox te lépp mbàkkee sag baax la ak sag liggéeyal Sëñ Tuubaa waaye nag yow soldaaru Sëñ Tuubaa nga li ma la wax yow soldaaru Sëñ Tuubaa nga moom daal na la yàlla musal guddal saw fan te wéral la mboolem loon naa daal sëñ bi yàlla nag nag suñu wax seera fan suñu wax seet na guy mbàkke moom moom moom doy na sëkk waaw naa sama dégg sëñ bi sax xam nga ko waaw waaye nag lu ma mos a seq sëñ bi ci moom la jaar waaw sëñ Bass mi nga leeral ne lu mos a seq sëñ bi rek ci sëñ Bass Tàkk Fall ci la jaar ci moom la jaar waaw waaye ñoo ngi lay sant waaw ah. nee na mi ngi rafetlu li ngeen ànd bi rafetlu ko lool. alhamdulilah alhamdulilah waaw moom dañ ñoo bu baax rek. sëriñ bi sëñ Guna nee mi sant bu baax. te dalal sunu xel nag sunu xel daal dal na. nee na xelam dal na bu baax ci yow Mbacke. ndax bi nga xam ne sëñ bi bàyyikoo na fi nii. bi nga xam ne sëriñ bi bàyyikoo na fi. wax dëgg yàlla amoon na njàqare lool. wax dëgg yàlla amoon na njàqare lool. ci ni sëñ bi tol woon ak na meloon ci nit ñi ci ni sëriñ bi tolloon ak mel ci doomu aadama yi ak ni ko ni ko defoon ak ni ko nit ñi defoon amoon nañ ci njàqare lool amoon nañ ci njàqare waaye seen jëmm yi nag tax na waaye seen jëmm yi Mbàkke tax na wax dëgg yàlla jaax jaaxaleetuñ dara wax dëgg yàlla Mbàkke jaaxaleetuñ dara dara dara keroog bañ agsee ci yow keroog na agsee ci yow wax dëgg yàlla na nga nu def na nga nu def def nga nu sa bopp def nga nu sa bopp Mbàkke te jàpp ne yow sa alal daal jàpp nga ne sa alal lan daal te dëgg la mooy sa alal loola neex ci nun lool loola neex ci nun lool war noo jafe nag te jafewul war noo jafe Mbàkke te jafewul nag li nga fi yónnee démb li nga fi yónnee démb wax naa ko sëñ Bass wax na ko sëñ Basiru Cokke mii mu na lii de diis ci ni ko ah lii de moom suñu diis na ci noonu ñaan gi rek laa soxla woon ñaan gi rek laa soxla laa ko wax gis naa ba nga nga ko jox bi yàgg nga ko jox sëriñ bi ànd ak sëñ bi bis bi ànd ak sëriñ bi bis bi loola nag loola nag nun ak ñaan rek lañ ci doon sàkku ñaan rek mbàkk na ci doon ndax su ngeen rek ndax ci nun la war a bàyyi ko ci nun ñii waa kër Cheikh Rafal jëm si ci kon li ngay dox ci yoon wi kon li nga dox ci yoon wi sëñ Bass ak liggéey bi nga ciy liggéey ak liggéey bi nga ciy liggéey moom ñoo ngi ci ñoo ci ñaanal baax rek sëriñ bi ne mu ngi ci ñaanal ba nga àggale ko fa ko bëgg nga àggale ko fa nga daa doon bis diis ci nun lool sëriñ bi dénkaane woon ko sëriñ bi dénkaane woon ko waxoon ci lam ci bëggoon lépp waxoon ci tax looloo tax jàppale nu ci nag waaye nag jàppale ngeen nu ci bu ci ci baatin ci ñaanuk baatin ak saayir ak saayir ba daanaka dañoo rek ba daanaka doo tiim dara loolu yëguñu ci dara ci dara dara dara sëñ Bass Fall mi itam sëñ Bass Fall cokke mii moom itam bi fi sëñ bàyyikoo léegi bi fi sëñ bàyyikoo léegi lépp lu ko sëñ bi joxoon mu yor ko lépp lu ko bi joxoon mu yor liggéey bi di ko doxal ci kër dama ko bàyyee ak moom dama ko yëkkati joxaat ko kon moom nañu ànd liggéeyal sëriñ kon nañ ànd liggéeyal sëriñ moom foo ko dégg te xuloo xeex foo ko dégg yàlla moom nekku fa moom yàlla nekkul foofa de waaye moom newul foofa yàlla newul foofa déedéet kon nag nañu moo tax ma daal di fabaat lépp teg ko moo tax ma daal di fabaat lépp teg na ma nag waaye mbàkk ma lay ni sëñ bas noppal na ma de ndax man de sonnatuma ci lenn ci dara dara dara ko tegee ci loxoom ba ko tegee ci loxoom ak léegi wax dëgg yàlla moom lépp rek lépp moom noppalu naa ci lu bare bari kon moom itam nag ma ko ñaanal kon Mbàkke ne na ma ko ñaanal nag bu baax rek bu baax a baax bañ mën a ànd rek bañ mën a rek te ànd bi dara bañ ko yàq ànd bi dara bañ ko yàq ndax sëñ bi boole woon nañ bu yàgg ndax boole woon bu yàgg yàgg lim lim nekk ak sëñ bi lépp lim nekk ak sëriñ bi lépp dañuy diisoo maa ngi moom dañuy diisoo maa moom suñu réeroo dara ci diggante ak sëriñ ba ba léegi nag ba tey waaw sëñ Issa doo doomi ah, sëñ bi la. waaw doomi sëñ bi la mooy sëñ ñoo ngi lay fi sëriñ bi doone mi ngi lay ñaanal sëñ Bassirou nga yàgg fi lool Mbàkke ndax ndamal yoon wépp nga nag ndax yoon wépp nga a gis gis la ku la bëgg a gis Mbàkke gis la te yitte ni ñi rek te ñi rek Mbàkke moom rek ay sab coono nag mooy sab coono de foo ko dégg rek foo dégg sëñ Basiru Mbàkke rek nga sol saw daal dem fa nga sol saw daal teew fa kon yoon wépp sa alal la kon yoon wépp Mbàkke sa alal la waaye jàpp nga ko nag waaye nag jàpp nga ko de def nga def nga ko muy sa alal def nga ko mu doon sa alal kon yàgg fi rek nag kon yàgg fi loolu Mbàkke moo nuy jariñ nag moo nuy jariñ yàlla na ko sa borom def yàlla na ko sa borom def jërëjëf suñu xel jërëjëf fa Mbàkke suñu xol sedd na suñu xel dal na suñu xel dal na jërëjëf jërëjëf ñu ngi lay nuyu bu baax ah sëñ bi li rëy na lool ci man te dis mosuma koo def de xam naa ma <laughs> jéem koo def rek waaye ma ngi nuyu ki kat turu sëñ bi di sant bu baax di leen jotale ak nuyoom di ko tekki loxol sëñ mu nam yi mu teg mu eggaleel ko ci loxol sëñ am di mu sëñ am di mu fu saal ak sëñ Cheikh Cokke ak njabootu njabootu ak kilifa yëpp di leen xamal ni sëñ bii moom lii rek a yéeneem lii rek la mës bëgg te fu fu ñu ko gisee fu ñu ko gisul ci lii rek nekk la nekk mooy mooy lépp sëñ bi mooy tànk la sëñ boo xam ne mooy tànkam mooy bëtam mooy làmmiñam mooy léppam kelool rek la nekk bu ngeen ko gisee fii bu ngeen ko neppee gis fii mi nga di def lu mel noonu <coughs> di def lu mel noonu kon nag ñu ngi sama wax dëgg yàlla damaa mënut mënut <laughs> damaa am kii waaye sëñ bi daal daa am ngànt ba mënut la yëkkati kàddoom waaye mi ngi leen sant bu baax di leen ñaanal di ñaanal seen liggéey seen jëf gii ngeen yàgg kook jëf te sëñ bi nangu lépp ki dara gi sëñ Tuubaa ndax kii ndigal ngeen ko teg te it moo seen wéyjur bu baax ba ñoo ko am moo ñoo ko àndoon ba nëga ni léegi mu ne mu dem mu des feeg yéen lim ci mën lépp mi ngi koy def yéen bu leen tiit dara ku am sëñ bi am nga lépp te am ngeen sëñ bi sëñ bi mi ngi leen ñaaral ñu ngi ñaan bu baax li sëñ bi yéene gi ñun sa borom def ko barke sëñ Bamba ñu li ñu yéene gi moom sëñ bi def ko barke sëñ Bamba sa borom bàyyi ko fi te yàlla dal ko te wélu ko barke sëñ Bamba sant nañ bu baax amin amin amin Mbakke amin raayo leen tamay yoon sëriñ bi